li nga xam ni moo di Moustapha Cissé Lo daal dina addu ci pataaral bi nga xam ni boobu léegi saa su ne dañ koy gis ni mu koy def waaye nag àdduna jëmale ci ki nga xam ni moo di Kajoor moom mii di wuyoo turu Idrissa Seck ci ginnaaw kàddu yi nga xam ni daal na ko yëkkati loole sax dinañ leen nekk li nga xam ni tey jii moom la ñu dëgtal waaye ba balaa boobe dañuy sàkku ngeen abonné ci chaîne bi partage commentaire like ndax kat loolu tamit dina nekk li nga xam ni luñ daal di jàppale la ci bile mbir di rafet lu baax saa su ne topp gi nga xam ni yéen ñi koy topp ci bile chaîne di Télé Futur 70 moom Moustapha Cissé Lo àdduna nag jëmale ci ki nga xam ni moo di Idrissa Seck rawat na taxawaayam ci politique saa su ne day nekk politique taxawaay bi nga xam ni taxawaay workat kese la ci loolee sax dañuy déglu kàddu Moustapha Cissé selo yi daal di ñëwaat. boppam barke Rasulullah avec Idrissa je le bats au Sénégal. ci élection dama ni Idi dama bëgg buy wax mu ñëw maa ngi moom ñu wax ci économie wala ak tubaab lu mu bëgg ñu wax Idi échoué bala mu mën a wax ak Sénégalais yi day dem li jën ci xaalis bi mu sàcc moom ak Ablaye Wade il a volé de l'argent ñu nekk di xeex mu tëj ko ci kaso bi ñu négocier protocole guddi mu génn loolu la def Sénégalais dañu laaj ci xaalis bi ñaata la lu xew. Ablaye Wade nee na Omar Sonko rek yow li ngay wax xamoo ci dara bu ma bëggee indi léegi mu ñëw kon ñi ngi ci diil protocole de Rebeuss bi ko génnee nuñ lay tëjee juróom-ñetti weer bàyyi la nga mel ne picc wala ginaar bu ñu fermé woon dem di yolli yolli naan ànd ak sama baay moom a gënal ànd ak keneen idi fenkat la naa fekk la li muy wax dara bu ci dëgg li muy wax gëmu ci dara yi nee ko moom sàcc la sàcc na suma xaalis man autorisation importation oto yi moo ma ko doon jël ci man fanweeri junni bu ma ñëwee moo ko doon def il est de mën nañu def enquête li may wax dama ko def Idi est un voleur. moom Moustapha Cissé Lo kàddu yi la daal yëkkati xam la ko ci ci ki nga xam ni moo di ndaamal Kajoor Idrissa Seck mu nekk kàddu yi nga xam ni kàddu yu yéeme la kàddu yu garaaw la kàddu yi nga xam ni saa su nekk moom Moustapha kenn du ko wedd kenn du ko werante ci li nga xam ni moo di ku dëggu ak kuy jubal ndax kat moom mi la dëggam jubalam gis nañ ko saa su nekk ci langue politique bi barawat na sax ñi nga xam ni saa su nekk lay faral mu nekk mbir bi nga xam ni moom bàyyul kenn kàddu yi la daal yëkkati xam la ko wéy leen fi nga xam ni moo di Télé ak xibaar ñu ngi leen di salaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu.